dañoo jëm ci ay élections législatives président de la république am yaakaar ci ñun ñëpp yaakaar ji yëmut ci ñi mu def ci liste nationale yaakaar ji yëmut ci ñi mu def ci liste départementale ci mbooleem ñu koy jàppale ci ñoom la am yaakaar ndax kenn ci ñun ku nekk ci liste bi sa jëmmi bopp mun a gañeel président Macky Sall ñun ñëpp ñooy maase ànd kenn ku nekk jàpp. kenn ku nekk indi la nga man complété sa moroom su boobaa victoire bi dana yomb te mi ngi suñ kanam loolu moo tax ñu ne kat nañu wut loo xam ne tey mandargaal suñu ànd googu yi ñu wut barab bi jagleel leen ko yéen ñëpp man mi ko wut ak ki gën ndaw ci parti bi ak ki gën ndaw ci mouvance présidentielle bi bis ñu ki tey ñoo ci yem. képp koo xam ne bëgg ngaa def sa réunion képp koo xam ne yittewoo nga ko bu neex nga ñëw tijji def fi li nga fiy def boo noppee dem te wax nañ ko génn na dëkk bi <coughs> kon warmaal nañ li nga xam ne mooy ndigalu sëriñ bi warmaal nañ li nga xam ne mooy suufu Tuubaa si ñëw bu fii ñu def ko fi kon yéen ñëpp ngeen xam ne yéen a ko moom yéen ñëpp ngeen xam ne ñoo ko bokk ñu jëm nag ci élection yoo xam ne élection yu am importance la li tax ba am importance moo di majorité assemblée nationale bu ko la république amut day indi instabilité ci réew mi mu seq ko ak nit ñoo xam ne dañuy def li tubaab di wax subversion am ci ñoo xam ne respecté wuñ les règles de la république am ci ñoo xam ne dañuy yee fitna ci réew mi am ci ñoo xam ne leen tax a jóg mooy bloqué doxinu réew mi loolu nag kenn ku nekk ñu dafa am responsabilité jóg faire face à cette opposition subversive pour jox président la république li nga xam ne moo di majorité pour que réew mi am stabilité bi nga xam ne moom la war a am te kii di président de la république képp kuy kilifa diine am na loo xam ne sëq na ak yow ñu doomoo ko ñoom ñëpp maase di ko ñaanal ndax ñoom li ñu teel surtout mooy kaaraange réew mi ndax taalibe yi ñoom lañ jox seen xol te taalibe yi bu ñu amul jàmm réew mi bu amul jàmm foog naa ne ñun ñëpp ci fitna la ñu nekk ñàkk jàmm koy kenn ku nekk fa nga ne dana la fekk ndax dana laal koo xam ne ci yow la loolu moo sabab tey jii ñun ñu war a jóg takku jàppale président ba majorité boobu nga xam ne moom la bëgg sunu borom jox ko ko. te amuñ ci loo xam ne moom lañuy ñuy nattable ne au soir du 31 juillet incha allah dana am majorité à l' nationale. mais mu am majorité te gañewul Touba gañewul Mbacké day am lu des moo tax nag ñi nga xam ne ñoo nekk fii dans le département. mbaytin mi ngi sama ginnaaw pour le monde rural waa Mbàkke bari nañ fi waa Touba ñoo fi ñu ñun ñëpp ñu maasee takktoo nekk benn def bloc xam ne cette année ci chance bi ñu am pour gagner les élections mosuñu ko am parce que en face y a rien ñu ko seqal tasaaroo nañu warante nañ ki su ki seen biir ba genn wàll gépp dem nañu seen kenn si jumbiwul ñi nga xam ne ñooy électorat ji tey ci amatuñ ci ñoom kóolute ndax amuñ lenn luñ leen teg amul lenn loo xamante ni moom leen di présenté comme bilan ndax bu ñu fàtte ne bu dee wàllu député ñun ñoo ne ci opposition fii ci dëkk bi ñoom cinq ans yi fi def ban bilan la ñuy présenté askan bi lu ñu leen waxoon bi nga xamante ni moom la ñu sàkk seen i baat te boobu te waxoon nañ leen ko ne woon leen ñii bu ñu demee assemblée leen mën a dugg xeexa lañ fa nekk ak wax ñëw ak saaga loolu nag foog naa ne Touba mérité wu ko et tey jii bu ngeen xoolee les listes tant au niveau départemental qu'au niveau mm, national profil yi du benn te nag képp koo xamante ne bii dëkk bi ñor na la képp koo xamante ne image yu Touba ñor na la booy sànni saw kat di yebal ndaw Touba fi barab war nga ko xalaat baax a baax parce que responsabilité la ndax lu ñu fa def dañ naan waa Touba yi ñoo def nangam waa Touba yi ña ngay saaga waa Touba yi ñu ngi xulu waa Touba yi ngi defi waa Touba yi def nangam. kon askan wi loolu yeewu nañ ci ndax am na foo xam ne jaar nañu fa moo tax ma ne chance bi nga xam ne ren ji am nañu ko musuñu ko am rawatina bi nga xamee ne booloo gi tey fépp foo xam ne liste musanaan a génn da ngeen daan dégg coow li bari ren kenn déggul benn coow ñëpp joxante loxo ñëpp ànd ñëpp yéenante moo tax ma ne tey ji toutes les conditions sont réunies pour que élection yi di ñëw ñu man koo gagné pour contribuer ci majorité bi nga xamante ne bii benn bokk yaakaar naan na ko am au niveau de l' assemblée nationale. te loolu jëfi président ci département bi daf ko jar du ma dër ci toutes les réalisations yi nga xam ne def na ko bi ci mujj rek mooy ndam bi nga xam ne moo jaaxaloon nit ñi boo demee li wër jumaa ji lépp ca armeel ya kenn ku nekk ñun denc nga fa sa sa maam wala sa waajur kenn mënut faa dem di ziyaara ji foo dem ndox maa ngi bal liggéey bi tàmbali nañ ko ba feeg weer yu néew nab bi kenn du ci wax ci dëkk bi muy ay milliards yu bare bare bare bu soobee yàlla alors bi jiitu ñëw di ginnaaw suba dinaa ànd ak ñenn dem ñu visité ko xool travaux yi nga xam ne tàmm lañ ko ngir wan ko waa dëkk bi. parce que président li fiy def kenn xamul nu mu toll loolu rek mooy li ci mujj. li ci des lépp wax nañ ko waxati ko waxati ko. kon. kon li nga xam ne moom lay def ci dëkk bi li nga xam ne moom la seq ak kilifa yi li nga xam ne moom lay fi def ak li mu seq ak kilifa yi loolu amul lenn loo xam ne luñ ci nattale la kon ana lan moo ci des ñun ñi nga xam ne ñoo ko fiy jàppale ñoo war a jóg dugg ci askan bi dugg ci ruq yi dugg ci ruqaan yi wax ak nit ñi dem ci sancaan yi dem ci hmm. barab yi gën a xam ne moo gën a soy dugg ci monde rural bi wax ak ñoom ñu xam taxawaay bi nga xamante ne bii kii di président la am na ko fi ak importance bi nga xam ne élection yi am na ko fi ak ñenn ñi li nga xam ne moom nañ mébét ci réew mi tëmb ci lenn loo xam ne suñu jamono wala suñu wala jàmme réew mi la loolu dañ ko war a leeral askan wi ñu xam ko ba kenn ku nekk buñ ci àggee ñu jël ses responsabilité def li nga xam ne mooy li gën ci yow ci sa wàllu bopp def li nga xam ne mooy li gën ci réew mi def li nga xam ne mooy li dëpp ak li nga xamante ne bii mooy li nga xam ne mooy li kilifa yi bëgg loolu moo tax ba ñun ñëpp ñu maase àndandoo nekk benn wax nañ fi ay problèmes yu bari yoo xam ne c'est des problèmes techniques lu ci wàllu. représentant dans les bureaux de vote liñ ci wax dëgg la dund nañ ko dundati ko dundati ko mais foog naa ne loolu jeex na tàkk dootu fi am ndax mesures yi nga xam ne war nañ ko ci jël danañu ànd waxtaane ko jël ko wax nañ fi li nga xam ne moo ci problème zone yi benn organisation xañ na baaxut en tout cas doxut à cent pour cent mais zone yi mooy organisation bi nga xam ne organisation de base bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ñu war cee liggéey kon li ñu wax léegi aussi ne nañ ko renforcer nit ñu dugg ci biir zone yi liggéey loolu mun a ñàkk mais loolu lépp dafa laaj ay waxtaan bu ñu fi jógee ñu def ñu def tournée dans les zones zone bu nekk ñu dem fa toog ak coordinateur bi ak ñëm ko seqal waxtaan ak ñoom càmbar jafe-jafe yi jéem a jafe-jafe yooyu yenn saafara lañ ci mën a indi ba ñu àgg ci élection yi kon ñu xam ne à partir d'aujourd'hui pré campagne bi commencé na man tous les après midi incha allah dinaa ñëw fi toog képp ku ma soxla naa la jox fi rendez fekk ma ku ñu war a seet ñu seeti la ku ñu war a waxal ñu wax ak yow dem ci kilifa diine yi dem ci imam yi dem ci seen daara yi dem ci association yi dem ci regroupement socio professionnel yi wax ak ñëpp leeral leen bàyyi bàyyi caravane yi ak ndaje yu xumb yi ak kafe yi def porte à porte dem ci nit ñi aw ci seen urmbal yi toog ci seen lal yi wax ak ñoom fii képp koo toog ci biir képp koo dugg gërëm toog ci ab lalam wax ak moom boo génnee parce que ay nit kersa lañ ay nit ñu baax lañ kenn du la ci wax waaye nag bu la dee seen nii rek loolu dafay des kon il ñu changer démarche xam ne nu nu te am na ñu temps pour def ko loolu bu soobee yàlla moom lañ mooy li nga xam ne moom lañ fas yéene def la ko topp rek mooy ñu continuer waxtaan bi li ci aju itam ci wàllu wax nañ fi ay wàllu formation moo xam formation mandataire la moo xam formation représentant bureau de vote yi la moo xam également ndimbali jëm ci jigéen ñi man ci fan yii di ñëw am naa ay formation yoo xam ne man am naa ko am na am na ñoo xam ne may nañu képp koo xamante ne bii yaa ngi ci zone yi wala nga bokk ci mouvance seeni jigéen day leen jël wutale ay formation yoo xam ne yu leen amal njëriñ lay doon te di ngeen gis ne bokkut ak formation nga xam ne moo fi amul loolu bu soobee yàlla danañ commencé avant la fin du mois de juin li nga xam ne aussi moo jëm ci ndaw ñi waxoon nañ leen nañ defar seen programme ñu xool ñoom lan la ñu bëgg a def loolu aussi ñu ngi leen ci déglu ñu defar un plan d'action bu ñu dikkee dañ leen ci accompagner suñu kemt lay kattan ñoom aussi ñu commencé dérouler li nga xam ne mooy seen yi lëfiñ li nga xam ne aussi mooy zone yi daanañu seet naka la ñu accompagner zone bu nekk ba déjà pré campagne bi ñoom itam ñu man cee yëngutu nekk ci di liggéey ba bu ñu àggee ca campagne ba fekk l' essentiel du travail aura fait parce que biir campagne coole day bari wax ji day bari kon daal li nga xam ne mooy li mooy li nga xam ne mooy li am solo mooy ñun ñëpp ñu tirer dans le même sens ñun ñëpp ñu ànd ak unité ñun ñëpp ñu am kersa ci kii di président Macky Sall xam ne bëgg nañu defal nañu bëgg na suñuy kilifa mi ngi def ci dëkk bi kon war nañu rus ëllëg di jàkkaarloo ak moom li nga xam ne moom lay sàkk wax na ko nee na ay xob rek dañ ko wàññi rek war nañu rus loolu ñun ñu ñàkk ko ko mën a jox kon foog naa ne bu ñu lamboo loolu am kersa googu ci moom góorgóorlu kenn ku nekk def ci sa kemt lay kàttan kenn ku ne def ci loo man ak loo mënut bu ñu yàlla dimbalee yàlla mën nañu jox ndam te rafet naa njort ci ne yoon bii bu soobee yàlla ndam ne comme ndax wax naa ko léegi ñi ñu jàkkaarloo ci suñu kanam ñoo leen mën et pour la première fois élection di di commencé koo gis léegi rek la ma koy spécialiste yu mag ay analyse ne ma day les signaux sont verts koo gis la may wax moo ne ah sëriñ bi dina fi fi ndool mel na nii mel na ni ñu ngi wërbatiku di ñëw ci seen wet kon nag loolu li ci moo di nañ ko yokku te gérer ko te aussi moytu cool yi xëy nag ba mbañ a yàqu loolu bu amee rek bu soobee yàlla li ñu bëgg danañu man daal maa ngi leen sant yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax seen taxawaay rafet na man lii mooy li nga xam ne mooy li ma war ci mooy li ma war ci yéen dugg naa ci seen biir ñu bokk sëriñ Touba ma dugg seen biir ñu bokk parti politique ma dugg seen biir ñu bokk ñu bokk benn mouvance boo xam ne ci la ñu nekk kon na ngeen xam ne li nga xam ne mooy li mooy tàllal ñëpp loxo fépp foo xam ne mën naa faa jàpp ngir liggéey lu gën a ndox su ma ko xamee danaa ko def su ma xamante bu ngeen ma ko waxee du ma ko bañ li may ñaan rek mooy kenn ku nekk nekk dans ces mêmes dispositions dafa nañ ko fi léegi ñu ànd ànd boo xam ne ànd bu dëggu lay doon ànd boo xam ne ànd bu sincère lay doon ànd boo xam ne dañ koy def ngir delloo njukkal ki nga xam ne moo di président Sall te mu def loolu ci dëkk bi te mu am yaakaar ci ñun te nag mu mérité gagné Touba mu mérité gagné le département de Mbacké te cette année ci ñu am chance réelle ngir gagné ko kon loolu bu ñu fo ba mu ñu rëcc bu kenn gis boppam nañu travailler en équipe xam ne li wax njaal bi ngir kenn si ñun mënut a gagné waaye bu ñu booloo mën nañoo gagné kon ndam li aussi nañu xam ne bu amee man lu sama ndam lu ndamul Mor Gueye li amul sëñ Abo ndax moom toute la mouvance présidentielle la li ci ma fari ñuy contribuer te nekku ci liste bi mooy ëpp man li ma ci def li ci bas ñuy contribuer mooy ëpp li ma ci def ak keneen ak keneen ak keneen kenn ku nekk xam ne sa ndamul morom la kenn ku nekk si yéene ko sa morom kenn ku nekk aussi ubbi sa xol yaatal ko bañ koo àggi moo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk et que c'est seulement ensemble que nous, que nous pourrons gagner ces élections-là. Non, non, quelques questions. Euh, yang.